Samba ngi noonu ci kafe gi oh di Baye Fall di sama waay day ñëw ba mu jekku ne ma laaj Diop solal barke sëñ Bamba kenn du moom ci man alaaji ma Samba maa lay siyaar. bilaay delloo siyaar la yor yaa am jàmm toog feex na baal na ci weeru koor gi. baal na la am na yàlla boole baal ñu fekk ay déwén déwén kontaan nañ ci yéen. ñu fekk la fii ci kafe gi nga xam ne mbay xaraa muy waaj am lu muy def fii ngeen nekk ci kafe gi nii nu ngeen dundee lii ngeen di def. bilaay mbégte parce moom tamit jàmbaar la quoi. damaa bàyyi sama axlu ñëw ba fii ndax moom ndax bisam bii te ma nga doomu aadama ci li mu nekk rek tamit day bàyyi yëpp mbiitam yëpp lii du du année bii waa yàgg nañ ko def mais moom jàmbaar la waa taal bi Serigne Touba la. Samba. maa ngi nii la jógee si axlu ñëw ci axlu Mbaye Khada. billaay sama xarit la moom laa am xaw ma keneen nañ ko ñaanal rek yàlla may ko jàmm. jaajo ak tawféex. kenn du yow. tey ko waxee fii ci Baye Fall yi ki ma taxawal ku ne xam na ko biir jàmm kenn xam na ko biir Bamba jàmm gën muy Bamba laxasaay di ndaanaan la 15 am na loo xam ne def na ko fii muy cant gu neex barke baa Bamba Baye Fall yëpp ñëw zikarkat yëpp ñëw képp kuy zikarkat képp kuy Baye Fall ñëw Bamba laxasaay maa lay nuyu looy nuyoo waa SBT Média waaw laaj Diop ñu ngi lay safoo di la ndamoo di la tiitaroo naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sant ñëpp nag di bëgg ñëpp ñi nga xamante ne teewoon nañu si sant gi cat ba cat bàyyiwuñu kenn wana Serigne Touba te nag dañoo bàyyi suñu yite bàyyi suñu temps ñëw ci koo xamante ne kenn la suñu ñëw suñu champion parce que sëñ Touba Mbacke mi may xadaa def fi ay ndogu te moom góor yàlla la Baye Fall la parce que sëñ Touba lépp lu mu nekk su lu nekk rek ñun dañ ciy nekk ñun ndax dund na ko ñun daal wana sëñ Touba di ko ñaanal jàmm ak wér gu yaram naan ko Abdou Sakor Fall genne Kandiar Yaram Fall ba gone la ko yaayam teral mu dem tool ah. nan ko Maam Bamba deful waxul ñu jàpp dugal koso Cheikh Béthio deful waxul ñu jàpp dugal kaso nan ko genne ko su ko jébbalu nan ko mbàkkee ba jàmm la nee naa la suñ Fallou moo matub sëriñ ndax ab sëriñ da lay mënal mën boppam mënaa la ay gaayam nga mu jàlla la kon suñ Fallou matub sëriñ waaw yal na yàlla def jàmm rek bamba laxasaay koor gi waaw man la bamba laxasaay li ma la waxoon rek du ma naax saay man la bamba laxasaay du ma naax saay du ma fekk sax ba naan saay sant sëriñ Touba laa def kenn daal maam Cheikh ibrahim Fall kese naka koor gi yaa ngi woor. maa ngi woor ay huit mois lay woor nag man. non huit mois un mois la ñu woor. huit mois lay woor. lu tax huit mois ngay woor. huit mois. voilà est-ce que yaa ngi woor. huit mois lay woor. huit mois. boo xëyee nooy def. dëgg mu la wax huit mois la lay woor fa laa mun a yem huit mois lay woor waaw. dal bu dal ba. dal sa. dal ba ke des dal sa àjjana. waaw gars yi naan dal sa baraara. maa ne dal bu ne dal ba ne dal ba ke des dal sa àjjana. ndax ajana moo dàq loo gis kenn ñaanu yàlla dem safara kon def si ajana. mais terme yi Bamba Lansarr day génn terme ñu xëyaat gisaat ko feneen. waa surtout loolu ñun loolu noonu dañuy sant yàlla bu baax a baax waaw di si gërëm Bamba bu baax a baax mais tey nag kii tax ñu teew tamit Mbaye Khada Baye Fall bëgg naa góor yàlla yab jàppale ko ndax dañ ne góor jàpp ci góor góor àgg fa yàlla ma seetaan ma ñeetaan ma ñeetaan ma kutus si lii lay yëngu. dañoo bëgg góor yàlla yàpp jàpp ko si si bu baax jàppale ko tamit bu baax a baax nit dàq koo jëngu kenn nit dàq koo ñaaw laxasaay nit dàq koo bëri ci àdduna war na Serigne Touba Mbacke xëy na nag ay tolof tolof nag moo ñëw mais lépp day jeex war na Serigne Fallou Mbacke yàlla na ko yàlla defal jàmm lépp lu mu bëgg ci xolam nag yàlla na ko yàlla defal ci barke Serigne Fallou Mbacke naa yow de maa gën a bëgg si yow fay naa cant gi waaw laaj Diop nan la wata seesee wa dong ko dongaa ko dong sarla yi maa di guudaa wax waa SBT waa SBT dul ko terme nga ni loo bëgg ma indil ko. loo wax neex na loo fental ma wax. loo wax neex na. fental loo neex ma ko. SBT Média doxalal. maa bëgg nga ne ma lii laa bëgg ma ko moo xam loolu. loo ci wax neex na yow. waxal loo neex moo ko loo wax neex na. Hmm. yow loolu nga gis naan la naan la nag la mu saf ka ko macc moo ko xam naan la wengal daa yore caf kam Dakar gu ñor da nga cee am beneen caf ka lii moo am ñun lii moo suñu tere moom la ñu am muy SBT. Média. Média dégg nga loolu. la mu saf ku ko macc moo ko xam wengal daa yore cafkaam Dakar gu ñor da nga cey am beneen cafka lii moo am ñun lii moo suñu télé. est bi daa ñëw si sa sëriñ. est ba daa ñëw si Bamba. nga ne ma. bi ñëw si taalibe. laa ilaaha illallaah dégg nga mu wax kon lépp yar ak teggin la lépp taalibe la comme télé bi ni ca kaw ca kanam si lu baax. di sant nag borom télé bi bu baax a baax. alaaji maas alaaji maas ne ne ko mu ciy jàpp nag. ba ma laxasaay ne na nga ciy jàpp bu baax góor jàpp ci góor voilà. jaajëf jàmm si yéen. jaajëf waay Bamba laxa la mu ngi noonu ba tey mu ngi noonu Baye Fall ah ci café gala salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñu ngi leen di siyaar den wax ni ba tey comme ni ñu ko waxee ñu ngi ci koor gi di baalu àq ñëpp di baal ñëpp di siyaar képp ki nga xam ne yaay seetaan seen bu mag bi di SBT Média tey ñu ngi fii jàmm gën fi ñu nekk mooy seet si champion daanaan bay xadaa ak koor gi. tey ñëw fekkoon nag muy waaj ay cant yu rëy rëy rëy ku xool Baye Fall fii xool tamay talmbat yeeg ñoom seen yu ñëpp. nga xam ne am na luy waaj préparé nag ndogu lu ris jox ko jaam yàlla yi ñu xewlu mais lataa boobu ñu bàyyi ko mu nuyoo mbay xadaa maa lay nuyu champion bi ndaanaan bi. la Diop Diop ngoonal latina borom maamu buur yaa ngi noonu si aar nañ la bu wér màggal la ku luxum bi di si bëggee waa SBT Média sama télé man maa ko la sama télé la ñaan chaque jour affaire yi gën a baawoon saawoon ba ñoom iri <laughs> sama papa ñoom ñëpp di ziar gaan Baye Fall yeeg ñëpp ñi fi teew ñëpp bilaay noonu la demee. tey mbay Xaraa ñu ñëw fekk la fii tey ñu fekk tamit nga am looy waaj di waaj ay cant nata boobu Mbaye Xaraa gars yi namm nañ la Mbaye Xaraa ku nekk di laaj mbay Xaraa fan la nekk ana mbay xadaa ana mbay Xaraa tey ñu ñëw dugg biir jàmm ga loxati la fii Mbaye Xaraa foo ne. waaw maa ngi nii rek kon ni ma fekkee maa gars yi fii nii chaque jour nii lay demee ñun ñooy nekk chaque jour fii nii noonu lay demee saa su nekk maa ngi fi maa ngi si lu ma nekk chaque jour si li war a nekk di si nekk saa su nekk loolu saa su nekk loolu kese la. waaw loolu kese la si li mu war a nekk laay nekk. comme nan loolu kese laay def si li mu war a nekk rek ma siy nekk. loolu kese moom war moo tax nit ñi duñ ma gis. si loo war a nekk loolu kese loolu la war ba tax nga raar kenn déggu la fenn kenn gisu la fenn diggante bi nga bëreeg sekk ndaanaan ba léegi gis ñu mbay xadaa xamuñ ci lu mu nekk ñu laaj la nga ne ci li nga war a nekk ci la comme nan. waaw si lu mu war a nekk si laa nekk te boobu ba tey si laay nekk. waxumaa wax ay kàll de da ngay wax ñi ngay déglu duñ ay kàll lu leer nga leen tegal ñu dégg la. waaw loolu noonu tey jii mënoo leen koo xam dara si lu mu war a nekk si laa nekk. moo tax mu demee ni après si kanam dina demee neneen après ma expliqué la loolu. Mbaye man li nga may expliqué xaw ma ci dara ci li nga war a nekk nii ci laa nekk moo tax mu demee ni comme nan. waa da nga maa laaj da nga maa koy gis maanaam ñëpp ma koy gis waaye loolu moom war moo tax ma nekk si yaa ngi dégg ndax nit ku nekk nit la rek bu ay nit nekkee sa ginnaaw. yaa ngi leeral waaw bu ay nit nekkee sa ginnaaw ngay doomu góor te xëy na ñëpp ay doomu góor lañ ndax ñun ñëpp ñoo bokk yem ñoo bokk fi ñu jógee ñoo bokk fi ñuy dellu mais tey jii dina lii rek dafa yombul ñun buñ toogee ñun famille la ñuy doon yaa ngi dégg ak ñeneen ak ñeneen yow gis nga man bu may bëri nu muy demee kon tey jii man si la ma war a nekk si laa war a nekk moo tax mu demee nii te si loolu laay nekk ba si kanam incha allah. tey ba tey comme ni ñu ko waxee ñu ngi toog ak champion bi ndaanaan Mbaye Khada waaw avant ñuy ñëw si cant geeg koor geeg ñoom seen Mbaye Khada làmb da koo namm tey mu bëri sekk ndaanaan yàlla dogal mu gaañu woon ci loxo boobu ba léegi gisuñu ko xamuñ ci lu lekk ñëw nañu wax ko mu ne ci lu mu war a nekk ci la nekk ba tey moo tax ñu fekkoon nii may xadaa nga bëreeg Seck Ndaanaan ba pare nga am gaañu gaañu ci loxo nan nga dundee gaañu gaañu boobu ak ëxlu làmb. waa métti laa ko dundee di si faju maa sama mbokk mu métti trop eh, tamit mais ñun ay doomi nit lañ rek nekk ñu ay doomi dafa lay doomi fas mbaam yaay eh, ay doomi nit te nit la nit la dara di daal yaay eh, ñun ay nit lañ ay jaamu yàlla lañ dañuy sabablu rek. xëy na ñun bu neexoon suñu dogal wala dogal ñii toog man du ma dal mais dogalu suñu borom na dañuy sant yàlla rek te di ñaan tamit moom mu ñu ko teg mu tegal ñu ko te bañ mën a nekk si lu ñu nekkoon kese loolu kase lañ koy ñaan. mbay xadaa bëree am gaañu gaañu ci biir làmb ji n'est-ce pas ci biir làmb ji nga gaañoo te mbay xadaa yaakaar naa ne ku ne mbër buy dagg licence dina dagg assurance ak ñoom seen mbay xadaa bi mu gaañoo ci biir làmb lan la ko làmb fajee. waaw loolu moom naa ne dama ne dootuma si wax xam nga dootuma si wax ndax booy wax yenn yi yenn yi dañuy jàpp ne yow tey da ngaa amul ay mbokk wala yow da ngaa mënulul sa bopp dara. yaa ngi boo xam da nga leen waaw loolu xam ne tey jii mas ñëwoon na fi ñu wax waxtaan si loolu noonu. yaa dëpp ba léegi tamit kon nii la demee ba léegi rek. yaa ngi dégg ñii bu ñu la waree ak ñeneen ak ñeneen yow jàpp naa ne tey jii waroo tiit dala bay ragal yaa ñun suñuy moyenu bopp kese ñun mun nañ jàppale jàppal naa appareil jàmbaar yi ñëw seen moyenu bopp kon ñun amuñu lenn loo xam dañ koy wax CNG nii pour loo xam ne si ñun la lu ñu koy wax mooy si ñeneen ñoo xam ne tey jii suñu borom mooy teg a natt bis mën nañu ma li ma dal mu daraat nit si làmb ñoom ñu def attention noonu si lool xam nga ñuy sóor loolu noonu ndax ñi ay jeunes lañ ay xale lañ nekkuñu ay doomu def ay doomu fas mbaam yaa ngi dégg jii man li ma dal yaa ngi may faju am na ñoo xam ne bu leen dalee ñoom mënu ñoo faj seen bopp pour ñoom ñu sóor loolu noonu ñu xam ne tey jii jeunes yi dañoo bàyyi lu bëri ndax làmb dañ leen jàppale te yàlla tax yaa ngi dégg ñu demee ba mënatuñ leen jàppale ñu taxaw ne ñoom mënuñoo jàppale maanaam jeunes yi si làmb yi nekk yow tey jii yow yaa ngi si métier wala yaa ngi leneen loo xam ne war na la mën a may pour nga tere say waajur nekk dem loolu ndax làmb ñun tey jii bëgg-bëgg mooñ si dugal ak amour ak tey mi jàmbaari seen seen victoire ñun mooñ si dugal mais du suñu victoire bopp yaay buñ ñëwee ñun buñ bëree ba pare buñ daanee moo ñun wala ñu daan lañ yemale ñun buñ xëyee dañuy ne si lu ñu war a nekkaat fàtte nañ loolu noonu kon ñun ñu sóor ñeneen quoi mais pas man ndax man ma maa sant yàlla instant yii fi bu baax a baax. kon na ni sax gaañu gaañu bi amul lenn ëxlu làmb loo xam ne jàppale nañ la ko ñëw taxaw ne Mbaye Xaraa taxaw faj la def nii du ma déggee jàmbaar yi la wër ak sa gaay yi ak sa bopp sa moyenu bopp moo la faj. waaw loolu moo ñu faj eh, amul kenn koo xam ne jii war na mën a ñëw wala nga ñëw jox ma dara na ma faju si noonu ba léegi nii may sant yàlla te maa gën a sant nag. Eh, di wax tamit ñun sëñ Touba gi tey mooñ ñu fi ñor ak ak. sëñ Touba gën si ñor dinañ si ñëw. mais ëxlu làmb dalaa namm mbay xadaa ñëpp lay laajte. saaru wér waaw maa ngi leen laajte ñoom tamit bu baax a baax maa leen safoo tiitaru leen barke Serigne Bamba. yoon kon yoon la bu ñu toogee fii ñu laaj la ci lool waaw làmb man maa leen gën a namm ñoom dañ maa namm mais maa leen gën a namm barke alxuraan yee nañ ma waajal bu baax a baax yee te mbëri ñi ma war a bëreeg man nañ bëreeg man tey promoteurs yi ñu ñu ngi may woo promoteurs yi yéen laa may woo di ma wax ay adversaires yoo xam ne tey jii du yoon quoi dañuy waxante du yoon. man nañ ma samay moom la contacté di la wax comme ñan lañ la wax. barki démb barki démb laa wax woo nañ ma barki Serigne Bamba di ma barki démb si guddi fi laa ñu woo ma di ma wax beneen adversaire mais du maag ñooñu yaa ngi dégg du maag ñooñu nañ ma jox si mbëri man mbëri ñoo samay morom. ñoon du ñuy waa ñu si kaw rek. promoteur yi kenn koo xanaa dañ koy woo di ko wax mbër mu ne du diw ak du bëre kook du bëre kook du bëre wax mbër bu ma am naa si droit ne la bëriwuma du ma eggee yow sax fenn fi nax ñoom leen arrangé la def man li ma arrangé laay def mais comme ñan waaw ñoom bu ñu ma fayee man dama leen di fayaat ñoom fayuñu ma pour noonu ma téye rek de man bu ñu ma faye ñoom temps dama leen indil lu ko raw kon man amul lenn loo xam ne dama koy gagné si ñoom ñoom ñooy gagné si man dañ may li ma bëgg man ma wax leen li ma bëgg point buñ ko mënee ñu def ko buñ ko mënul ñu dem xoole keneen loolu ko la. tey comme ñan lan la contacter na la yàgg diw. waaw ñooñu bu ma leen tuddee tamit <laughs> yow dañuy jàpp ne tey jii mooy lool du maa ñooñu daal du maa ngi ñooñu. léegi du yaa ngi ñan la. waa maa ñi ma waree a bëre yow xam nga. man xaw ma de mbay xadaa waxal ak fii. yaa man xam na ah xaw ma. tey boo waxul du ma xam. non instant yi moom mooy loolu mënu maa wax si ñooñu barki seen Bamba eh, mënu maa wax si ñoom bu gën a dëgër bi. tey bu la seetee jox la koo xam ne tey bëgg nga ko ngeen bëre di ngeen bëre. barki salaatul fatiha pare naa buñ ma jo seetsee promoteur bi moo waat téléphone wax ma adversaire boo xam ne li ma gënal ak ñoom li leen wax buñ ko nangoo def ma bëre barki alxuraan pare naa billaahi wallaahi te nag dañuy santaat rek saa su nekk ndax ay taalibe lañ ay ndongo lañ loolu kese la ñuy def dañuy santaat mais yàlla baan li si kanam raw li bët waaw après premier combat laay bëre sam premier combat laay bëre bii. da ngay ñëwaat retour bi. mbay xaraa amatul le ay mbay xaraa yéeg yooyu noonu. booy ñëw premier combat ngay bëre. premier combat laay mbay xaraa kenn xamul ku koy après dañ koy xamaat premier combat. ay wax nga wax de. waaw premier combat. un wan <laughs> am nañ fi wan un giga maa ngi ñëw. kon noonu la ko waxee nee na premier combat lay ñëwaat promoteur yaa ngi koy di ko wax moog diw a diw mais nee na moom du moog ñooñu te mbay xalaat nangu ta wax moog ñan la kon ñun làmb ji nii ca digganteeg Thiatou Rebeuss. <laughs> waaw kooku bu mu bëree combat ma Alliance Baldé doon nañu ma wax mais si man la desee woon. waaw si man la desee ñor na de. ah man la dese woon daal si man la dese woon <laughs> waaw. Mbaye si fii xool sa diggante Thiatou Rebeus tey promoteur contact na ma pour combat boobu mu taxaw. déggoo ma ñooñu tey ji man li ma def si làmb ñoom def ñoo si làmb amul kenn ku may taxaw naa la nii wala naa si man la desee woon daal si man la desee woon waaw ba ma bëree ba pare woon nañ ma ndax ma bëree Alain Balde daan ko après si lañ ma ko wax man tamit ma xaw a bañ mu dem jëlee Alain Balde waaw. promoteur woowee combat yéen ñaar. waaw loolu ñëwagul après rek. gis naa promoteur bu taxaw kay tëgg. non loolu ñëwagul kenn woowaguma si. yàlla taxaw naa gis naa promoteur bu taxaw pour tëgg. waaw yàlla baax na ba boobu. yàlla baax bu ba boobu incha allah. billaahi ba boobu. <laughs> Diaz leen boole de. <laughs> waaw maa njëkk a tër jéegi woon ko yoon mu ñëw jaaraat si moom. waaw maa njëkk a defal bagage mu ñëw jaar si. yaa njëkk defal bagage wala moom moo njëkk defal bagage. ah laajte leen maa njëkk a def bagage amal ko. defal ko bagage mu defal ko bagage. waaw lamb boole na leen yéen a ah yàlla baax na. ñun daal lamb lañ ma fi yàlla tamit. lamb lañ fi nekk nee xadaa mu ngi doog a ñëwaat ci lamb moom it nee na moom it day doog a premier combat laay doog a bëri xaw ma kon laay. nee na day doog a ñëwaat. xaw ma ko yow bëri waat mais premier combat laay bëri ak moom. soxla mooy cinquième combat sixième combat spécial grand combat soxla ma dara premier combat laay bëri premier combat laay sifflé arbitre bu muy sifflé maa njëkk a bëri mu jeex ma dem ñibbi. premier combat. ngay bëre premier combat laay wan. wan wan kase. mbay xadaa ba tey tey ñu ñëw fii fekk la fii sa gox fi nga xam ne fi nga dëkk juddoo fi màggee fi tey ñu ñëw fekk la ci kafe gi fii ngay préparer loo xam ne lu doy waar la di defar kafe di jox jaam yàlla ñuy xewlu ak ndogu yeeg yooyu ñuy wàcc di ñibbi aw guñ seen kër nga jox lañ ndogu li ngay def nii nii kañ nga ko tàmbalee def. waaw lii neex lu bees ñun yow xam nga ñu tey jii bu dee sax yow ñoo xaw a dëkk ndax ay dëkkandoo lañ day dara mënu fi ëmpe yàgg nañ koo def mais tey jii ñun fii lañ dëkk quoi fii la ñuy yeewoo tey jii lépp lu ñu am rek ñun fii moo ñu ko gënal yaa ngi dégg tey jii di suñuy mag ñoo doon ko def ñun tamit ji ko si ñoom yaa ndax xale ba muy nekk ndaw lay xool lu baax wala lu bon après moo ci xool lenn lu mu ciy jël rek mu jël ko si ñun nag gis nañ ñoom ñu def lu baax ñu jël ko si sur le côté boobu noonu yaa ngi ñoom la ñuy sant ba pare ndax ñun amuñ lenn loo xam ne ñun dañ koy sant suñu bopp ndax ñoom bu ñu leen def lu bon ñu gis leen ñun kon tey jii lii du am waaw mais li ñu baax lu ñu def ba ñu gis ko moo tax tey jii war a am ñoom la ñuy sant avant tout waaw ba pare nag ñun ay taalibe lañ ay taalibe lañ ay ay ndongo lañ tey lii lu ñu war la ndax ñun fii lañ dëkk tey ñii tëli baa ngi nii ñu si bëri yo heure ndogu si yoon bi laa leen fekk tey yoon la ñun fii lañ dëkk yaa ngi dégg ay jeunes lañ chaque dimanche ñu teg fii génn baas bi génn jox gars yëpp ñu lekk ak nuñ tolloo rek ñu jox leen ko loolu kese la lu ngeen jox leen ko ngeen koy def ba tey ngeen jàpp bis boo xam tey da ngeen di yëngal def cant cant googu nan ngeen ci dugg see. waaw cant gi mooy kon gars yi rek gars yi yor ku si mel ne ay Gaspar ay ñoom Tafa Lam ay ñoom Sall ñoom Vito yëpp ay ñoom mam Thierno mu ndaw ay ñoom Sidi ñoom ñëpp bu ma limee damay juum. kon mën na ni ñuy def cant gi yëpp ci ëxlu bi lañ bokk. ñëpp fii la ñuy toog même bu dul lii boo ñëwee fii nga ñëpp ñoo jotaay ñëpp ñoo ko def ñoo xam ne tey ñooy zikarkat yoo xam ne ñooy zikar cant gi tey ñan ak ñan la. sama rakk moo koy zikar waaw Baskara. Baskara damay yàlla wàllu pub bi nag. sama rakk moo koy zikar Baskara. taalibe borom daaru bi dañ koy ñaanal jàmm rek rakk ju mor rakk la tey ji bu ko neexoon neex ci leneen mais dafa neex ci loo xam ne tey ji roy waay la quoi ci côté boobu noonu ndax tey ji ku ci mel ni am na ñoo xam ne bëgg nañoo mel ni moom moom tamit bëgg na mel ni ñeneen te dañ koy ñaan suñu borom lépp loo xam ne tey jii moom la bëbët rek mu eggalil ko ak ñeneen ak ñeneen ñu si bokk ak ñoom magook ñoom ñëpp gaan bu ñu limee dañuy juum ñoom ñëpp hmm. ñëpp daal nga xam ne tey cant gi daal tey dina wàcc koon si kanam tuuti fii lan la xaar ci kanam tuuti fii ci tànt bi yéen daal xaar leen bi ñu génn affaire yi léegi mu jot ñu séddale ko ñu toogaat ndogu ba pare après ñu doog a eggale <laughs> noo defa koor gi yow koor gi maa ngi si koom yaa ngi woor maa ngi woor de matin et soir damay woor midi yow xoolal deux heures trois heures cinq heures lépp laay boole woor. Ah. maay woor chaque jour waaw. mbay xadaa bu wooree ba ngoon ndogu jot mu wara a ndogu mbay xadaa lan lay wax buñ ko joxee tàndarma bi. man instant yéen a may wax loore mais man bu ma wooree booy yi kenn ñeme maa xool du ma wax kenn. ndax koor daa métti koor dafa métti la jóg. parce que sëñ Bamba. gënal la de xewal la de. yaay rek ko ñemewul de. akum jëmm ñu ne ko doo woor da ngay woor suba ba ngoon doo lekk la jóg yow ba ma ko woon dañuy xeex. keneen ak keneen bu ma ko woon damay xeex man man koor def ma ne ndax Jóob laa sant waaw bokkul man Njaay laa sant waaw moo tax man la yéena ko ñeme waaw moo tax tey ji bu ma wóorul aw ma kenn ko xam ne may wax moom fii yaay yéena may wax loolu nag après may fay <laughs> après may ndax mënu maa wax ma ne nga woor ba ngoon dog jot nga téye tàndarma bi war a dog lan ngay ñaan foofu nag alhamdulilah rabbil wax mooy santaat bu baax a baax damay xam ne lépp luñ ma tegoon suuf ba ngoon tey deñ na damay lekk bu suuf naan ba mandi toog waaw nekkal si leneen loolu lu baax la. Hmm. mais boo teewee tàndarma bi war a dog laa la wax am na ñaan boo war ñaan foofu mbay xadaa lan la. la Diop alhamdulilah daal weesu lu dul ñaan ñaan la ah alhamdulilah rabbil alamin. wax allahumma la ko amanu. <laughs> xanaa Vito jàngalul la. non damaa fàtte nag dama ko fàtte jàngal quoi. waxoon naa ko lii ne woon naa ko gars yi dañuy booy dog lay wax mbay. ah mais tamit li wax rek laay wax. kase lan laa wax leneen li nga wax nii. laa wax man. loo loo wax waxal li nga wax. kay li ma wax xamatuma ko yow laay laaj. non man kay fàtte naa ko kon waaw ah, fàtte naa ko de waxal li nga waxoon rek rek la jóg yow maayo benn la. man ngay tëggale sa bopp. sëñ Bamba maayo ñoo yow jàngal rek boo jàngee man daanaka man mën naa rek loolu kase la. noonu la demee ba tey mbëri nee naa leen jàng leen ngeen bañ noonu la demee maa ngi fii si Baye Fall fii nag sama koñ la sama chef la. parce que boo xoolee cant gi fi yàgg nañ koo def kafe gi fële la woon ñu jëlee ko foofu indi ko fii nga xam ne benn la muy benn tali bi maa ngi gis sama baay faal yi ñoom bés baay faal yooyu nga xam ne dañoo baax si man ay vito ki nga xam ne sama sama lépp la tey bu ma xamee mbay xaraa ba toog moom ma njëkk a toog présenté mbay xaraa boobu mbay mi ngi toll nii mu fekk ma néegam mu nu ma laaj Jóob kii mooy mbay xaraa mbër la mu ngi ñëw ndax boobu yàgg na waaw du tey kon bu mu ñëwee fekkaat ñoom ñaar toog nii damay xam ne lu yàgg la woon di ñaan mbay suñ borom tamit wéral loxo bi mu ngi ci entraînement yi tamit mu ngi ci waat mu tane bu baax a baax duggaat parce que bu jógee mbooloo moo koy topp maas parce que ku xool jàmm gën fii tëlimaam jaara bu mbay xaraa di génn nga xam ne kii am na cër fii te am na lu mu fi doon kon dañ koy ñaan suñu borom kattanal ko may ko tal ba mu wér ak jàmm ba delluwaat ci li mu nekkoon jàppante ak jàmbaar yi promoteur nag ñu ngi koy contacter mais tamit moo caata rëbës foofu dafa war a taxaw waaw am na promoteur yi ko bëgg te yaakaar naa bu ñu jógee fii léegi léegi fi ma SBTA lépp fi lay leeree alaaji Maas daa xiif ba mun ta wax ndeysaan loo koy wax sa papa ji. sam papa la xam naa daa xiif waaw mais fi ay prépa fi am nag daf si nanga rek. mais na ku mën a lekk idi idi idi boo xoolee xam ne kii lekk rek lay def. idi gàmm gu fomm mën na koo lekk. lekkër la xam naa ko sam waay la. maa ngi koy nuyu bu baax. di ku baax moom it barke sëñ di Baye Fall xeese booy yàlla na jàmmam yàgg. jaajëf Mbaye xanaa aca